syndicaliste yi ñoom seen gis-gis dine rek nguuru Macky sàll li mu matalewul bëri na te sax nag li ñu war a xoolaat mooy sakkan gi nga xam ne sendikaay yi sakkan nañ ko fii ci senegaal ba sax léeg-léeg mu di leen yàqal lu bëre ci seeni wàllu xeex Youssou Touré di ci àddu ñu teewlu ko. woote bi am na solo yaakaar naa lu baax la du ñuy féliciter premier ministre ak gouvernement parce que. Euh, defaguñ sax ñetti weer wax dëgg yàlla euh, faj nañ euh, ajo yu bëri ay jafe-jafe yu bëri fexe nañ ba ba ba faj ko di ñaawlu nag lenn wa du ñaawlu sax mais du ñuy ñaan aussi président de la république ak gouvernement bi maanaam presse bi journalistes yi ñu yemale leen parce que yaakaar naa ne liggéey bi nit ñi di def presse bi moo si nekk amul presse boo xam ne moo gën beneen presse donc di ñaan rek président de la république bu waree wax ak presse bi mu woo presse bi yëpp di ñaawlu aussi maanaam euh, euh, si mbiru syndicat yi syndicat yi nu mu bëree 2003 euh, ñu ngi amoon fukki syndicat ak benn tey am na ñeen fukki syndicat ak ñaar donc si loolu ñu gis ne def nañ ay joŋante pour centrale syndicale yi mais nañ ko defee noonu pour syndicat enseignants yi syndicat sax moo gën a gaaw ñaari fan doogu mën nañ ko def si ñaari fan parce que xam nañ fu jàngalkat yi nekk